ñu lay nga présenté wu wax tur bi wax fonction bi nga def ci voilà man maa ngi tudd Alla Diop nekk commune de Djidah gis li nga xamante ne ngeen tabaxal jeunesse su Thiaroye yi li nga xamante ne salle d'administration xale di ci entraîné tey comme euh, idée bi maanaam fu euh, idée bi. d' abord mi ngi jógee ci euh, boo ñëwee ci maire bu Djidah Thiaroye kaw dafa am ay xale yoo xamante ni dañoo yor euh, dozo compagnie de karaté ça fait presque dix ans ça fait presque dix ans xale yi ñu ngi entraîné ci biir institution municipale bi te xam nga une institution municipale aussi c'est pas fait pour ñu fay pratiquer benn sport bu compétition euh, maire nag bi mu ñëwee ñu gis loolu en même temps aussi boo siyénoo boo sillonné commune bu Djiddah Thiaroye Kaw fépp foo fekk benn espace rek da nga fa fekk ay jeunes yoo xam ne dañuy def karaté wala ñuy def taekwondo wala ñuy def box loolu nag ci la maire amee idée ne euh, mu xool gis ne département de Pikine ba mu daj amul benn commune bu fi am salle des arts martiaux à partir de nag mu ne moom il porte la responsabilité historique ci biir mandat am mu tabaxal les sportifs de Djiddah Thiaroye Kaw benn salle boo xam ne day nekk salle des arts martiaux non seulement pour que sport bi nga xam ne ñu ngi koy def ci ay endroit yoo xam ne du ay endroit yu adéquat ñu mën di ko defee ci ay salles yu ñoom mais en même temps ñu am un équipement boo xamante ne nii dina leen mën a permettre ñu compétitif au niveau national et au niveau international parce que mënuloo jël ay xale yoo xam ne suba da nga bëgg ñu dem représenter la commune représenter le département représenter le Sénégal dans des compétitions internationales te fi nga xam ne fa la ñuy tàggatoo aussi amul du matériel adéquat parce que y a pas de tapis professionnel le cadre n'est pas idéal donc euh, ça c'était un défi pour le maire et alhamdoulilah aujourd'hui le maire docteur Cheikh Dieng euh, a réussi vraiment à faire de ce rêve euh, des sportifs une réalité aujourd'hui foofu la ñu nekk ci centre boobu la ñu nekk te tey boo xoolee mbooloo mu bari mi nga xam ne dañ fee teew ñuy jóge fu nekk ci département de Pikine ak fu nekk ci Djiddah Thiaroye Kaw euh, au au bonheur de cette jeunesse euh, vraiment ñun daal suñu xol dafa sedd te xam nañ ne vraiment nous avons fait un pas envers ces jeunes la pour leur pour un accompagnement professionnel. parce que le bilan du du maire docteur Cheikh est un bilan très lourd. Euh, mais nous notre priorité c'est l'éducation parce que euh, dëkk bu mu mënti doon pour nga accéder à un niveau de développement tel que rêvé il faut d'abord que l'éducation vraiment soit bien accompagnée et que mu am ay xale yoo xamante ne dañuy am formation dañuy jàng dañuy am ay lijaasa moo tax Euh, à l'aune de notre mandat en 2014, la commune de Djidé Thiaroye Kaw était classée dernier ci 16 communes yi nga xamante ne ni moom moo nekk département de Pikine euh, mais grâce a un accompagnement et à un encadrement et des outils tey en 2020 la commune de Djidé Thiaroye Kaw était classée deuxième dans le département de Pikine en 2021 la commune de Djidé Thiaroye Kaw était classée et classée même premier dans le département de Pikine loolu nag du samay wax waxu inspecteur académique bu Pikine Guédiawaye moom moo ko wax loolu fa la jógee donc kon bu fekkee ne priorité suñu priorité suñu bilan éducation la woon tey ñu dem ba nekk le premier dans le département au niveau de l'éducation je peux dire que euh, là c'est un mandat boo xamante ni c'est un mandat très riche ci ci ci bilan bi Euh, beneen bi ci topp mooy tey la commune de Djiddah Thiaroye Kao était la commune la plus inondée et la plus inondable en 2014 nous avions eu plus de 300 familles déplacées dans des écoles réparties dans les sept écoles de Djiddah Thiaroye Kao et même des écoles privées aujourd'hui en 2021 gis ngeen taw bi nga xamante ne nii moom moo fi amoon ci jamono yi ba Kër Massar était tombé sous les eaux Yeumbeul était tombé sous les eaux Malika était tombé sous les eaux seul ji de Thiaroye Kaw vraiment n'a pas eu une seule famille boo xam ne déplacé nañ la pour nga dem fenn kenn génnul këram e que amul benn conséquence néfaste boo xam ne taw bi am na ko ren ci ji de Thiaroye Kaw tout simplement parce que dañoo jël près de deux mille huit cent linéaires ñu suul ko ci suuf ba mën a créer ay canalisations secondaires yoo xam ne moo ñu mën a permettre ñu faire un bon drainage vers les bassins de rétention qui ont pu conduire les eaux dans leur circuit normal et c'est ce qui a vraiment aidé Djiddah Thiaroye Kao à ne plus être dans les eaux. loolu accompagnement la boo xamante ne nii aussi maire indi na ci ay xalaat te incha allahu rabbi bu yàlla dogalee ñu am un deuxième mandat tout l'équipement bi nga xamante ne nii. daf ko nécessité un équipement professionnel nous avons pris devant le conseil municipal l'engagement vraiment de doter de centre de du, du matériel nécessaire pour être un centre performant pour être un centre boo xamante ne nii dana mën a génne ay combattants yoo xamante ne nii dinañ mën a compétir au niveau des des des des, des compétitions internationales avec toutes les normes requises voilà je dis hein euh, comme j'ai dit rek Euh, docteur Cheikh Dieng aujourd'hui les populations peuvent ne pas le connaître comme tel que souhaité mais les populations aujourd'hui teg nañ seen loxo ci son bilan non euh, cette violence là était une violence provoquée par le camp de de de l'APR par le camp de Benno Bokk Yaakaar parce que violence bi fi mu am mooy ci siège u docteur Cheikh Dieng bi nekk ñetti mbaar je pense que ku toog ci sa biir siège Euh, ci période campagne bii ñu toll defuloo euh, defuloo caravane defuloo dara da nga toog ci sa siège di def sa travail politique mais des gens le candidat de Benno Bokk Yaakaar Mamadou Gueye accompagné de nervi fekk ñu ci suñu siège je pense que loolu Sénégal yëpp xam nañ ne euh, violence boobu ci camp bi mu jógee c' est le camp de Benno Bokk Yaakaar parce que c' est dans notre siège que ces que ces sont produits donc kuy ñaawlu li nga war a ñaawlu mooy jóge bi ñu jóge fa ñu nekkoon ñoom déplacé wu vers notre siège bien armé armé jusqu'aux dents avec Mamadou Gueye même ñëw fekk si di ñu xoqatal pour ñu dellu ci li ñu nekk. non cela dépendra de parce que ñun dinañu riposter à la hauteur de leur attaque lépp lu leen jaral rek jaral nañu ko waaw mais dama xam nga kan la ñuy waxal ki nga xamante ne nii moom mooy provoqué. et la provocation aujourd'hui ñëpp xam nañ fan la jógee parce que dañoo attaqué Gaynde Badiane le candidat euh, euh, dañoo attaqué le candidat Gaynde Badiane à 18h à 20h30 ils ont attaqué ils ont attaqué le, le, le siège de, du maire docteur Cheikh Dieng c'est Mamadou Gueye avec ses éléments avec ses nervis et avec ses responsables